Monsieur le Premier ministre, je retiens de votre discours deux concepts, combat et solution, c'est-à-dire un gouvernement de combat et un budget de solution qui traduit parfaitement la vision du chef de l'État dans le PSE. Je retiens de votre discours un discours rassurant, un discours qui consolide et réconforte les programmes et perspectives de la loi de finances de 2023. Bref, un discours d'espoir pour les femmes, les jeunes, socles de notre société. Monsieur le Premier De Fouta à Marsassou, les réalisations du président de la République sont concrètes, sont visibles. Monsieur le Premier ministre ñuy wax ne monde bi dafa nekk dafa faire face à trois défis majeurs moo xam environnement la moo xam sociale la moo xam économie ma bëgg a wax ci question environnementale à bi li fa président de la République def ñu koy remercier bu baax a baax parce que président de la République dafa ci coono inondation yoo xamante ni guddeeg bëccëg ñu génn population yi di leen yóbbu ci école yi di leen yóbbu ci lycée yi président de la république ñëw construire ñu li nga xamante ni mur de protection dans la langue de Barbarie te ku nekk xam gendar géej gi nu mu ko nangoo avec l'érosion côtière président de la république fexe xamante ne avec l'AFD construire ñu benn mur brèche bi nga xamante ne dafa rey plus de deux cents personnes à Saint-Louis tey jii ñu nekk monsieur le premier ministre ñuy wax ne la seconde phase dañoo bëgg ñu ko parce que budget bi am nañ ci espoir am nañ ci yaakaar te population bi yaakaar nañ la ci bu baax a baax monsieur le premier ministre saint dafa bokk ci programme mu di assainissement loolu nag dañoo bëgg travaux yi ñu commencé ko bu baax a baax ndax ku xam ndar xam ni dëkku ndox la may wax ne son excellence président Macky Sall jaaraama parce que ku mel ni moom sogun ko ci réew mi proposé ans dootuñu gis ku ko fi proposé kon merci beaucoup monsieur le premier ministre mais gàcce nga laa ma son excellence le président Macky Sall. merci cher la parole est à notre collègue Fatma Mbodj Guy Marie Sagna le suivant. merci président. asalaamaaleykum. monsieur le premier ministre maa ngi lay nuyu di nuyu membre gouvernement bi nuyu sama collègue yi ak presse bi yëpp monsieur le premier ministre déglu nan la nga def sa déclaration de politique générale ba noppi xam naa nag jox nga ñu ay chiffres bu baax ba suñu bopp fees na suñu bët yi fees na mais sachez monsieur le premier ministre qu'il y a toujours un signe de à côté d'un signe de plus te bu ñu la déggee ci sa jeu de chiffres yi dina tax man ma laaj la monsieur le premier ministre tey ñaata ménage ci Sénégal ñaata njaboot fii ci réew mi ñi ko jiite di borom kër ya ay ger kër ga di joxe dépense li tax ma koy la nag mooy borom kër boo fi gis ma ngi ñaan yàlla doom aw ko bala moo retraité ndax ku ci retraité yàlla nattu la amoo doom bu laaw di nga am ay jafe ak pension retraite yi ak dëkk bi nii vie bi foog naa ne retraité bu ci yor kër euh, musiba wala toroxte ñeel na la monsieur le premier ministre ñaata jigéen depuis 2000 waaye ma di la laaj monsieur le premier ministre ba tey ñaata ménage tey jii ñoom jafe-jafe wër boolu añ kenn du ci manqué lekk ba macaat ba naan ataaya ndax defe naa jafe-jafe yi ci dëkk bi kenn ku yaa ngi dem bopp sa bopp ndékki añ ak reer jafe ñu baree baree bari bu guddi jotee kenn ku ne boo mee sa mburoog ndambe mbaa nga am sa laax nga dem reere ji ko tollu lépp ay jafe-jafe la xale yi amatuñ njogonal bool dafa amatul loolu yëpp di jafe-jafe ci lekk yi nga xam ne lépp a cher ci diw ceeb kon loolu dinaa la ko laaj monsieur le premier ministre waaye ma lay laaj depuis 2012 ba léegi ñaata homme politique ngi ci kaso yi ndaxam danoo wute gis yéen wute gis ak la politique du président Macky Sall ndax ñii police jàpp na leen dugal ci biir ñii gendarmerie moo leen ci biir détention provisoire yoo xam ne xale yi ñu ngi si ñoom dara boobu ba léegi ci seen cas mënoon naa continuer di poser ay questions ci jafe-jafe yi ak manque nga xam ne ñu ci dëkk bi ci lu doxul su ma demee si éducation abri provisoire yi nga xamante ne boobu ba léegi bi ngi lëbbe te bu ñu provisoire mooy loo xam ne euh, temps bu gàtt la war a doon boole ci surpeuplement bi boo demee ci ay collège wala ay lycée yoo xam ne ma nga fees dell waaye du ma wax te bàyyi du ma fàtte Touba gi ma jóge université Cheikhul Khadim bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha dem na ci xam dayoo jàngale ba tax mu def ko defe naa war a ci loolu te xam ne ña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

grands-parents, nos arrière-grands-parents, tirailleurs sénégalais, assassinés par centaines en 1944, ici, à Tcharoy, vous écoutent, Les victimes du néocolonialisme français d'hier à aujourd'hui vous entendent et vous regardent, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, allégeance à l'impérialisme, le premier problème. problème. Le problème de l'Afrique, c'est aussi des présidents, des ministres, des fonctionnaires milliardaires qui l'argent du peuple, le privant de santé, d'édifices, euh, de sécurité, de tout. Or, l'impunité des des petits. Monsieur le Premier ministre, nous n'attendons de votre PSE, plan Sénégal emprisonnement, plan Sénégal enchaîné, plan Sénégal exploité. Et Inch'Allah, en 2024, nous allons libérer le Sénégal. Le libérer de la bourgeoisie bureaucratique APR et Benno Bakiakar qui pille ce pays en général le français en particulier. En attendant 2024, où nous allons libérer le Sénégal, libérer Pape Alignan, libérer Amidja, libérer Mamoudou Sek, libérer, asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk seen leen di nuyu monsieur le ministre et monsieur les ministres ñu ngi leen di nuyu euh, di wax rek ni euh, Sénégal bi nga décrire ak Sénégal bi ñu xam bokkul Sénégal bi ñu xam ñun mooy Sénégal boo xam ne c'est un pays c'est un pays pauvre surendetté moom ngeen ñu fi bàyyil un an moo leen fi dese euh, beneen bi aussi mooy Sénégal boo xam ne déficit budgétaire la ak ay besoins de financement donc loolu moo fi nekk leneen li mooy vous êtes une minorité vous à quarante six pour cent virgule quelque chose passe à une majorité il faut les respecter beneen bi mooy la démocratie est malade maanaam démocratie Sénégal dafa feebar par votre gestion clanique basée sur la haine la violence et l'instrumentalisation de la justice pour kidnapper les libertés éliminer des opposants politiques à travers des complots odieux comme ce que vous avez tenté de faire euh, Ousmane Sonko ne passera pas derrière derrière derrière vous le risque que le est dans l'axe du intérieur, affaires étrangères, justice. Ils n'ont qu'à assumer les responsables, en plus de vous et de votre président. Votre travail par ce président déstabilisateur et démolisseur des institutions, c'est de déstabiliser la cohésion sociale. loolu Sénégal yi duñ ko le ridicule ne tue pas si le ridicule devait tuer dina bëri ay néew trop ñi ma wër dans du melaan heureusement que le lion dort encore euh, une politique qui met l'environnement en péril wax nga ba sonn tuuti nga bind ci wàllu environnement dégradation des écosystèmes loolu nag li nga wax ci wàllu euh, changement climatique réglé wu ko parce que yéen ngi def exploitation anarchique des mines partout à chaque année quarante mille hectares le Sénégal di perte par at exploitation du pétrole et du gaz offshore loolu aussi day indi ay gàllankoor yu bëri ci ay yàq-yàq ci 10 pour cent kese yoo ngeen ciy am beneen bi mooy yéen ngi détruire les fonds marins euh, leneen li aussi mooy que amuleen benn respect ci écosystème bi te loolu la génération yi yaakaar loolu nga wax ci li ngay wax sànq exploitation des mines ça coûte 3,7 pour cent en richesse nationale 13 tonnes d'or soo demee boo demee fële Kédougou dëkk bi or bi di génn ñoo gën a pour ñoo gën a ñàkk xale ya ñu ngi ci kaso ba Mako ya Kédougou jàpp lañ tëj wala ñu jàpp rey loolu rek moo am ci or bi beneen bi mooy 2 millions de tonnes phosphate demal ICS agent yëpp a ngi jooy tonne de si 60 ton de zircon nga bëgg a yàq diggante jogo euh, Lompoul ceeb tund Mbawar bu ma dëkk jëm ba Saint-Louis lépp comme ça juste pour des rentes yi nga xam ne amul benn euh, avenir pour nous euh, leneen li ki des mi ngi jëm un peu wàllu nappkat yi nappkat yi waxoo si ñoom yow li nga jàpp mooy nooy def ba tasee napp gi parce que boo bëggee def exploitation pétrole ci biir géej gi mu am ay ceinture de sécurité de cinq cent mètres à un kilomètre partout gaal yi muy dem nga def contrat pétrolier nga def ay contrat de pêche yoo xamee ne bi ni jaay nga géej gi yépp léegi nag ngeen nga jàkkaarloog nappkat yi ne leen yéen sànku ngeen dem leen uti beneen liggéey loolu du jàll insha allah di ngeen fi jóge en deux mille vingt quatre ñu jël réew te ko ci yoon wasalaam merci Cheikh Abdou Mbacké Ndeye Fatou Guissé se prépare Euh, jërëjëf monsieur le président assemblée nationale monsieur le premier ministre Amadou Ba maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp di ay ministre di ay jëwriñ te ñëw teew ci bis bi nga xamante ne lu am solo la te constant bi ñu wax ñu ko digal ñu ko ci article cinquante cinq di beral nuyoo boobu nag ministre finance bi nga xamante depuis quarante cinq jours nekkoon ak moom député opposition ak poir bi yëpp maase sargal ko ndax ak yaroom ak xam-xam ak dalam ñu ngi la koy ñu ngi koy gën a sant bu baax ci loolu. monsieur le premier ministre ginnaaw bu la félicité encouragé confiance bi président la république am si yow pour tànn la nga jiite li nga xamante ni mooy gouvernement bi ci ginnaaw élection yi 2019 bi monsieur le premier ministre ñu dégg li nga wax lépp waaye monsieur le premier ministre li nga wax lépp lu am solo la waaye bëggoon naa aussi nga wax sénégalais ni lii mu wax lépp. ak li ñu jot def lépp depuis deux mille 2012 ba 2022 eh, Sénégal si boppam muy population bi jox na nañu Macky Sall 35000 milliards francs CFA pour mu doxal trent cinq mille milliards jox nañ leen kon yaakaar naa li leen jox ak li ngeen ñu wax ni moom ngeen def pour mën dafa tuuti monsieur le premier ministre dafa am ñaari xale yoo xam ne dama leen fekk ñu yelwaan man naa lu ngeen def ñuy dañuy wër suñu nijaay Amadou Ba te xamuñu fu mu nekk. monsieur le premier ministre malgré que li nga wax ne moo ngi bëgg a def lépp fan mooy sa bureau est-ce que am nga bureau parce que ku la bëgg adresse sa xamul fu mu nga wax ni lu la woon moo gën a neex 2022 parce que kilo ndawal 2012 2500 la woon fi may wax ak yow la premier ministre jur gi nga xamante ni mooy sàmm yi seen dund gi kilo bi cinquante la woon deux mille vingt deux mi ngi nekk trois cent francs CFA monsieur le premier ministre kon bëgg nan chiffre yi baax na lool waaye tamit li nga wax fii yépp danañ la may temps ak opportunité boo xam ne da nga ko doxal parce que ku ne xam na ne li la fi desee fukk weer la ak ñeent yow yaay premier ministre boo xamante ne xam nga sax njeexatal fan lay yem monsieur le premier ministre est que yow pare nga pour que bu Macky Sall bëggee def troisième mandat nga wax sénégalais yi noonu loolu du fi am waaw wala déet est ce que du monsieur le premier ministre gëm ni Macky Sall dafa war a troisième mandat moo tax ñu jox bi pour que nga mën a weddi waa sa bopp weddi askan wi loolu tamit nga bàyyi loo ko xel monsieur le premier ministre sart si bari na mooy yi bari na est ce que maanaam facilité bi ma ne moom la ñu wanté pour nga mën a liggéey la liggéey ko ndax loolu kat jàpp naa ne bu la joxee te gis na ne maanaam li nga war a teew yépp ci loo xam premier ministre a doxal yaakaar naa loolu tamit pour a liggéey résultat lu jafalee doon kon monsieur le premier ministre da xam ne fii nga toog am na ñu bari ñu fi toogoon bu mu si mel ne ko sax Mimi Touré aji bu sumaar yoon naa ko fi ñoom ñëpp ay premier ministre la woon déclaration pour général fekk na mu fii ba tàyyi kon maa ngi lay wax ni rek yoon waa ngi. Merci cher collègue. La parole est à notre collègue